mbokki Guet Ndar mbokki nappkatu Sénégal napp gi sooxe na ci mim réew pourtant centaine de millions centaine de milliers de personnes ñooy dundee napp gi ci Sénégal li tax napp gi sooxe Sénégal bare na bi ci jëkk mooy géej gi ci boppam ni ko état bi war a aaree aaru ko boo aarul sa géej nit day jóge bitim réew ñëw jël li nga am yóbbu ko géej gi war a noppalu munoo am surveillance bu war a tax mu noppalu ba géej gi ba jën yi mën a loolu négligence su état la bu fekkee da nga am pêche bugg mu développer da nga war a defar infrastructure de pêche am ay quai de am ay équipement niveau d'hygiène bi nekk fii système de transport bi conservation bi lépp soo ko gisee rek nga xam ne ñii liggéeyuñu secteur de la pêche boo gisee jigéen ñi nekk ci pêche bi condition yi ñuy liggéeyee nga xam ne liggéeyuñu secteur de la pêche kooku foofu la sooxee ñaareelu sooxe bi mooy jamono yi dafa am pétrole ak gaz Sénégal ñu commencé ko liggéey ñu signé ak Mauritanie mu nekk suñu wet waaye bi ñu koy signé boole wuñ ci nappkat yi ndóol bi fi nekk bu fekkee suqali nañu pêche bi dina gën a jëm kanam fii ñu jëm boo leen sàgganee ba réew mi delluwaat ci loxo yi mu nekkoon ah luñ ci góobee ñun ñoo koy garandoo kon nag boo buggee bëggee yëpp changé dañu bëgg ngeen xam ne Boubacar Camara yegg si na te fas na yéene liggéey réew mi ñëpp a gis ko. kan mooy Kama Kama mooy Kama te Kama mooy tabax Sénégal. mooy faj boobu ma ne bu docteur ñëwee nag da koy jox sa bopp rekk xel yi dal xol yi féex yi fees xel yi dal xol yi féex poos